ñaanal leen ko rek. moom bu. Uh-huh. Ah, waaw kon amul dara loo koy yokk moom. non defet bi koo moo tax. ah moom da koy jig. yàlla mooy wane kéemaanam kéemaanam. Uh-huh. am na ñoo xam ne faaw ñu daan nekk roi des roi des arènes nekk champion pour a siiw nit xam leen am na ñoo xam ne faaw ci defet la ñu a xamee. waaw mm-hmm. ah, noonu la kaa bi comme papa rek. waaw daanaka ci defet lañ ko gën a xamee. waaw jaam taag noonu la demee kenn ku ne yàlla ay maye. Mm-hmm. mais si ma dox boobu depuis loolu dégguñ la nga communiqué ci génique bi nga xam ne. def gisee fermé maanaam tey foo sànni mbattu mu tooj booba léegi dégguma la nga wax ci noo ko gisee. abo ah Sidi tooñ na fa de. non dama ko yëgul moo tax. waaye waaye yëg nga Zénith bi le vingt neuf samedi passé ni réew mi neexee woon. non xam nga samedi passé maa ngi woon Sali ci Momo Sénégal Mbour Sali waaw maa ngi woon Momo Dieng moo doon tëgg xam te waa Holdings event ñoo ko organisé man ñoo ma sax. man Diouf man Zénith si ma yóbbu mu def ko waa macha allah def mhm. waa Holdings event tamit ma leen di jaajëfal baax a baax ndax ñoom ay liggéeykat nante lépp lu liggéey na lañ daanaan yu bëri Wally Seck Sidy Diop ak ñëpp ñoom Pape Diouf ñëpp ñuy liggéeyal macha allah ca jamono ji am na lu ñuy waajaat voilà maa ngi leen di ziar ba samedi maa ngi woon fa laa nekkoon guddi gépp donc xaw ma xaw ma li xew mais dégg naa nga gars yi dañoo wàññi di doy de. Ah, waaw hmm? ah, suñu dafa nga am loo ci dugal quoi nag sëñ Bada. non mais je ne ah yow tamit gars yi dañoo wàññi di doy bii dañ ko doon maye. mu ne. bii dañ ko doon maye. dañ doon maye bii. bii dañ ko doon maye bien sûr dañ ko doon maye. ñoom ah. wax nañ ko ah a loolu mooy loolu mooy après dañoo wàññi rido yi xam nga jeexal nañ bi daay nañ ko mu jeex am na ci kaw am na ci suuf comme cosaan ah. ci suuf rek nga gis ah yow tamit seen ay caaxaan ñu ngeen laaj dox Youssou Ndour ñëwut ak Baaba Maal ngeen laaj lool lan moo tax ñëwul ah voilà mais loolu loolu ngeen war a lijjanti <laughs> kaara de. déedéet yaa ñu mais loolu ngeen war a lijjanti nga. ah mais ngeen war a lijjanti nga dem leen ngeen laajte ko pare du leen ko wax parce que man damaa wax doxu su ma waxee ñu ne waxati na loolu laay bañ. dafa ci xam. si man lépp laa téye ci réew maîtriser ko. man de sëñ Bada tamit. moo xëy. Ah, mu neex lool. yow nga ah, wax man la sama yoon nekk ci parce que man yeguma li xew man dal fuma ma nekk wala nekk waye vidéo yi ma yego li xew ta nga yeg ne rido yi dañ ko wacc waaw mais vidéo yi ma seetaan boko ko nga gis ne vidéo yi do ko wàcc dañ ko wañi dañ ko wañi lol même pas 2500 personnes 3000 personnes loolu yomb na fi kay ko may ay bié kay ngaan ñu ñëw taxaw feesalal ah ñaa bié ñom ñoo ko ah taxaw ñu may bié ñom nga dégg ne da nga may bié ah, jëna ay caaxaan jëna tek bërsi Bercy Dakar jógee soo fetee lekk gars dem seen i. gars yi nag dafa ñàkk chance om heure bii da ko waroon fekk France. non man su ma waree dem maay maay yóbbu sama bopp man kenn musuma yóbbu fenn xanaa sama waajur sama yaay wala man sama bopp ya, hmm. bu weesoo man jeex na mais kenn musuma yóbbu fenn te kenn du ma fenn. waaw xaaruma ko ci kenn dagaanuma ko ci kenn fu ma bëgg dem incha bu heure bi jotee maay demal sama bopp. la ko kan leer ku jàpp ne da ngaa mën a fenn maradi peuple boo ma déggee ak boo ma déggul téye loolu dafa leer. mais mais fi mu toll nii Sénégalais yi ñëpp jox nañ bopp ki nga xam ne moo di Sidi Diop parce que mission accomplie def na ko maanaam matériel li nga xam ne moo di réussir na ko fi mu toll nii moom xam naa ne guddi yi nii Waly balaa boo ko waxee da nga ciy Sidi Diop. ci ginnaawam de superstar la nga koy ber. koy teg fële. teg fan kon. da nga koy def ni ko yàlla def kooku benn la sa superstar. waaw yaram man nekk moo fi di tontante wala di dàggasante man dafa am ci lu man dafa am ci liggéey ma ne fi mu toll nii bii di ñëw bi ci topp ñu ngi waajal Thiès Keba Seck dafa war a dem war fa tëgg ànd ak jëriñ ko ne bu mag bi donc ci yooyu laa nekk dama nekk ci programme nekkuma ci yii quoi mais sëñ Bada yow léegi programme yi ni mu bëree ci yow artiste buy génn sëñ Bada day nekk ci côté hmm. loolu loolu lan la ba tey tax na tey fi mu toll nii artiste yu si bëri maanaam sëñ Bada day nekk ci ginnaaw waaw parce que uma sensé ndëd ñëpp laay liggéey Njeri Ngoné Kiba Holding Events Maria Sin may si bige Mar Ibra Naajo Kiba Omo Sans Interdit man ñëpp laay liggéeyal artiste yu ndaw yeeg ñëpp. nag. moom xuloo maag moom kuy jubóo day nga xuloo xuloo amul. mais nangoo tax tudd turam yow. waaw ah, que ku xamoo noonu la demee. déggu la déggante wu ngeen tamit. Mm, noonu sequñu ko. Hmm. Mm-hmm. mais yow foofu nga nekkoon daa nga ko défendre. Mm, mais man man man mosuma nekk moom man Matar Diop suba teel moom fu yóbbuwoon moom laa nekk moom laay topp muy nit ku baax. Hmm. bref. juuf hmm. lan nga way seetaan génit bu tàng jër bu neex série bee baas. waaw kooku moom. kum way mom kum xasa way namatoo dara ah oui maa la loolu la ya bo bañam bañ ma way ya bo nopi ah oui ah, no lolu fa le ay yore Pape Diouf way wo do na la bu la xasee way no Pape Diouf bu la xasee way jeex no ala di ko ma ili woyu la naajo way waaw suñ bada keeman waaw suñ bay bada loolu rek na bay bada su xeere waaw loolu jo beral na la loxo de bay bada boobu mo sama jarbaat la yàlla ko yàlla defal jàmm sama jarbaat la Ah mais ñëwal ci boobu lan nga gis ci loo xam ne jeunes bi tey da lay leer ne tey hmm. li yow lii dangay gis ne lii fayet la. non loolu uma ci ak yàq uma ci ak defar sama yoon nekk ci. Hmm. non waali waali la waali nekk ci xelam nekkul sama xel loolu nit ñi doxee doxee noonu kenn ku ne ngay doxee. Hmm? man la demee. ci sama xarit dafa leer waaw. ak ci ñu ngi lay kontaanee bu ko defee mu bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw merci merci loolu bu baax baax. waaw mhm. ah, kontaan naa ci jaajëfal ñëpp. di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq. Mhm. yaa ngi jëf sama gars yi merci waay. waaw. waaw eh, moom defet la dëkk. defet la dëkk. Hmm, moom la dëkk moom. moom mooy moom mooy defet bi ngay dégg mooy mooy Bou defet waaw defete koy dundal xam nga kenn ku ne ak li lay yokk waaw di am ay wala merci beaucoup moom defet koy dundal hmm. defet mooy njiglaayam waaw defet mooy njiglaayam hmm. ñaanal leen ko rek moom bu uh-huh. ah, waaw kon amul dara loo koy yokk moom defet bi ko jig moo tax ah moom da koy jig yàlla mooy wane kéemaanam kéemaanam uh-huh. am na ñoo xam ne faaw ñu daan nekk roi de roi des arènes wala ñu nekk champion pour mën a siiw nit xam leen am na ñoo ne faaw ci defet la ñu mën a xamee waaw hmm. ah, noonu la kaa bi demee waaw daanaka ci defar lañ ko gën a xamee. waaw jaama tàkk a la demee kenn ku ne yàllaay mhm. loolu dégguñ la nga communiqué ci génique bi nga xam ne. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao